taasu mooy nday rab ba ko waxee lu day jël taasu dugal ko ci rab moo ko fi njëkkale ba nit ñeme ma soo gis benn taasu benn rab boo xam ne dañ ci taasu te du génn carton nit du complexe complexe warul jaar bu nit jëlee li nga xam ne nii na ko xëcc ko ba yëkkati prêter serment ne lii sama dëkk maam la jógee te effectivement sa dëkku maam la jógee ba jàmbur di la ko nangul kon ñi nga dëkkal la ko nangul la. bravo bravo. nañ la ko nangul teel a nangu day yombali tuuma. sunu maam yi nga xam ne ñoom lañ jàppoon yóbbu ca Amérique di ñu jaamloo di ñu torturer di ñu def lu métti bu ñu demee ba la ñuy wax récréation ñu bàyyi la pour nga soufflé wu ñëw di taasu ñuy bokk ci suñ biir di wéyandoo wéy boo xam ne day am mouvement d'ensemble di am ay wéyu américain toog fee toog ndax li jàpp sa maam jaam sët ba ree def mu di ñu conseil lu ñu am mu ñandee ñu lañ seen yóbbu dëkkam

xàccu ci li nga moom nangu woo waaye nañ la ni sa dëkk maam la jóge yàlla na la yàlla may ndam man nag nit ndox laa mënu ma wax mbooloo <laughs> <laughs>